le président il parle le 26. ci sa njort ci booy analyser. lan la sa njort gën a jege ndax dina wax pour désister wu wala ndax dina wax pour ne day dem dafi euh, cette troisième candidature. man li ma jàpp ni moom lay wax jàpp naa ni conclusion yi dialogue politique bi tënk yëpp dina ko d'accord te dina ko dina ko nangu. jàpp naa loolu. Mhm. waaw. y compris le désistement pour la troisième mandat si sa candidature loolu moom dafa am agendaam te ñi wax ak Macky Sall yépp ci candidature bi képp ku génn ni Macky Sall wax na la day bokk wala du bokk waxul dëgg. kenn xamul lu mu nar def. voilà Macky comme ci waxal si néew agenda la lay wax agenda et il a raison parce que affaire dafa toll foo xam ne données yëpp tax données yëpp <laughs> dajeegul nit doo wax ci loo xam ne nii t'as pas toutes les données wala xam nga ni ma la données yëpp dajeegul dafa am données yoo xam ne yëpp faw mu daje pour nga mën a am une appréciation pour mën a wax. mais yow da nga koy nangul ne. Mhm. moom am na agenda am mun na respecter agenda am mhm. mais yow jàpp nga ba tey ne. warul présenté wu ci troisième mandat. non man kay li ma wax la ma ko bind mu ni fàggu. li ma jàpp mooy Macky Sall en deux mille vingt quatre dafa war a organiser élection yu transparente rendre nguur gi dem dans de meilleurs termes et cetera loolu du changer.